ça va bien. Tu viens de la présenté euh, Fanta Baro. Fanta Baro étudiante en licence de physique chimie sciences de la matière. oui. bon Boss Média à l'université Bogon quelques reportages concernant l'affaire de Ousmane Sonko et Adjissar. et les rumeurs. Hein? oui euh, qu'est-ce que j'en pense euh, vraiment c'est une affaire vraiment bizarre te nit moom da ngay maanu da ngay maanu gisoo da nga ciy maanu parce que ñun fekkee wuñ ñiy wax côté Sonko fekkee wuñ ñiy wax côté Adji Sarr fekkee wuñ donc vaut mieux être vigilant ci li ñuy wax et je pense que moom il faut laisser la justice faire son travail. salaamaaleykum Sénégal maa leen di nuyu ku si nekk ak sa tur ak sa sant man la Abdoulaye Souaré étudiant faculté des sciences et des lettres département anglais. waaw comme sama collègue bi ni mu ko waxee rek yaakaar naa ni. mun naa wax ni histoire bu absurde la parce que tey dangay gis ñoo xam ne tey euh, seen leader da leen a jaral ñu dugg ci dëkk bi amul luñ defut lu nekk ñu dugg ci man yaakaar naa ni soo amee sa leader mu nekk koo xam ne moom nga bëgg te moom nga yaakaar ne am nga ci moom espoir pour ëllëg mu jéem a defar suñu réew yaakaar naa ni nekkul nii nga koy xeexle da ngay toog ba élection ñëw nga jël sa carte dem votel ko bu boobaa.

mun naa wax ne duñ si mën a sori waaw parce que am na loo xam ne tey nit ki la ak moom ak yàlla. bon si je m'appelle Brahim je suis un étudiant à la faculté de lettres sciences humaines. di wax ak population sénégalaise yëpp parce que li nga xamante ne ni benn affaire bu concerne ñaari sénégalais la donc ñun en tant que aussi dañoo war a jiital mooy li nga xamante ne moom mooy xam-xam. parce que tey espace universitaire boo ko waxee c'est l'intelligence qui règne c'est les études qui privent. Donc, si tu es un étudiant, tu, tu, tu, pas, tu, tu, pas, tu, tu ne dis pas n'importe qui. donc cela veut dire que je di ñaax ci côté boobu en tant qu'étudiant, étudiant tamit ñu ciy gën a bu baax parce que ñun gis nañ que tey lépp lu xew même politiciens yi tey boo doonee politicien jógee fële pël bu nga def sa promotion nga il faudrait que ma cible à l'université Et cela, c'est à éviter loolu tamit benn affaire bu dangereux la ci espace universitaire bi kon ñun les étudiants ñun ñoo ci war a jël ay mesures yu strict ñu taxaw ci ñu éviter loolu ñu xam ne ñun njàng moo ñu fi indi sàkku xam-xam moo ñu fi indi il nag bu problème amee ci dëkk bi concerné na ñu concerné na ñëpp donc côté boobu tamit maa ngi ñaaxaat bu baax suñu mbokk étudiants yi ñu gën cee bàyyi xel bu baax a baax. waaw man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré nekk étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques waaw et coordonnateur de mouvement citoyen Sénégal notre priorité. d'accord merci euh, par rapport ak euh, euh, kaaw Adji Sarr Ousmane Sonko ak affrontement yi jotoon am côté université ak partout mën naa ni fépp ci Sénégal ah lan nga ñu ci mënoon wax. waaw bon je pense que analyse bi ñuy def moom la Sénégalais yëpp def rek que am na lu fi xewoon ñu jàpp ni injustice la jàpp ni comme nu mu koy faral di waxee moom Macky Sall. bi mu faloo ñu jox ko discours lu mu njëkk a wax mooy je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression au lieu que mu ne naa jéem a fexe pour saafara jafe-jafe askan bi mais loolu mooy préoccupation am réduire l'opposition à sa plus simple expression ñu gis fi aussi également ay cas yu bëri gis ci kaawu Khalifa Sall gis ci kaawu Karim Wade gis ci kaawu Barthélémy Dias bi nga xamante ne moom moo ko doon défendre avant muy falu mu falu Barthélémy Dias génn ci coalition mu bëgg koo néewal doole <clears throat> ñu gis ne moom la bëggoon def Ousmane Sonko. ñun nak ñu ne dé do ci dal bok man suma xé ñun peuple sénégalais bi lay wax parce que ñom ñoo gënon du kenen ku gënon ku dul jeunesse bi donc lolu mo fi jottona xew motax buñu gisé dossier Ousmane Sonko ak ñun Ousmane Sonko nuñu ko nuñu ko xamé ci ay valeur nuñu ko xamé ci ci ci ci diiné ak lu muñu jaay lu muñu won ci discours di japp ni ki bes buñu sétané dina dina def Ousmane Sonko comme numu def Khalifa Sall comme numu def Karim Wade té comme tam mom mo fi taxone le 31 décembre né duma gis morceau yu xonko te képp koy gis muy takk morceau yu xonk manifestation pacifique la manifestation pacifique rek ngay gis nit am jotu di takk ay morceau yu xonk comme de moom nee na nag du gis morceau yu xonk moo tax gars yi wuyu ko ci manifestation violente yu mu doon woote te franchement nekkul tamit lu ñu gënal. waaw comme ni ko Sénégal yëpp xamee rek liñ ci xam moom du lenn lu dul euh, Ousmane Sonko dañ ne ko yaa violé Ousmane Sonko ne violé wut ñun loolu lañ ci xam waa mais nag ba may laaj ko man ban position laa ci damay jël euh, position bi nga xam mooy euh, damay far ak Ousmane Sonko parce que ñaari wax yëpp déglu nañ ko bu Ousmane sonk ak bu Adji Sarr mais li nga xam ne moo gën a tey moo gën a dal suñu xel daal mooy Ousmane Sonko moom lañ jox ne moo wax dëgg mais nag ki wax dëgg nag loolu moom yàlla moo ko xam mais ñun suñ xel daal li lim ñu gën a jox ci analyse parce que kii day wax kii wax mais ñun suñu xel lim ñu jox moom Ousmane Sonko lañ jàpp ne maam moom moo wax dëgg quoi waaw. bon kaw Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko moom euh, war nañ cee mën a wax parce que citoyen lañ comme tout le monde euh, problème bi nag bi mu amee ba léegi kenn ku ci nekk mu ngi joxe sa point de vue ñi tey ñi ngi défendre Sonko ñeneen ñi ci ko am na ñi nga xam ne ñi ngi naan ñi ngi défendre Adji Sarr mais ba léegi cas bi fi mu yegsi nii mënoon na fee bañ a yegsi pourquoi mënoon na fee bañ a yegsi gars yi ñu ngi dégg ñu ngi naan sivilo politique la mais tey ji ne ak lu mën di am Ousmane Sonko am na ci part de responsabilité Sonko mën nañ ne am na ci euh, Adji Sarr am na ci part de responsabilité mais tamit mën nañ jàpp njortu que tamit ñu nekk ci gouvernement bi am nañ ci responsabilité pourquoi